yoon yi dox diggante Oussouye ak Karouaye ak Oussouye ak Bouddiédiète ubbi tepp parc national bi nekk ca Basse Casamance amal ay déminage ci dëkk yi nga xam ne conflit Casamance bi am na fa ay jeexital loole mooy ñetti tomb yi nga xam ne waxtaanee nañ ko diggante chef de village yu Bouddiédiète Essouk Diak Emay lu jawolaf Ñambalang ak Santhiaba Mandiak muy dëkk yi féete ci biir Sénégal ak itam dëkk yi nga xam ne ñu ngi féete ca Guinée Bissau lu ci mel ni teñaat jirak kasolol ak basewoor bokk na ci ñi teewe woon ndaje bi la itam muy ñaari fukk ak ñetti membre yi bokk ci kuréel bi ñuy duppee MFDC ci ñetti tomb yooyee nag ñaar ñi jot nañ ci am ab déggoo lu ci mel ni ubbi tepp yoon bi ak itam ubbi tepp parc national bi le nga xam ne doon na ay bànkaas yi nga xam ne askan wi mën na ci sukkandiku ngir suuxat diwaan boobe te itam gën a rataxal diggante Sénégal ak Guinée ñuy fàttali ne parc national bu Basse toll ci juróomi junni hectare nga xam ne nguuru Sénégal moo ko amaloon ci atum 1970 mu doon ab forêt bu yaatu te rafet waaye nag ginnaaw attaque bi fa amoon tukkee ca MFDC ni ki atum 1993 lañ ko tëj te boobaak léegi tàbb nañ ab comité nikaatum ki atum 2001 ca usuy ngir amal ubbite parc boobe waaye mu jul antu ba tax na autorité locale yi ab jéego bu am solo lañu amal ngir jëm ci lu ni mel li ñeel opération déminage bi nag ñii di waa MFDC moom nangoo guñ ko ñuy xam ne ne ba léegi gisaguñu lu dal seen xel waaye nag teewul danañ wéyal waxtaan wi comité de veille bi itam dina wéyal ay waxtaan ak yeneen acteurs yi nga xam ne bokk nañ ci diwaan bi lu ci mel ni gouverneur préfet ak autorité militaire yi ak itam collectivité territoriale yi